billahi samihi alalim min asheytaani irajim bismillahi rahmani irahim wasalaatu wasalaamu ala sayidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa ashaabihi wa xadimihi wa man tabiahum bi ihsanin ila yawmi ddin mbokki jullit yi ñoo ngi leen di nuyu mbokk taalibe yi ñoo ngi leen di ziyaar comme niñ ko xamee ci dëkk bi ci ñëw sëñ Mamor bi nga xamante bi ne daf fi ñëw di dundal tànk yi nga xamante bi ne waajuram sëriñ Mouhamadul Mortada moo ko tàmbali woon moom mu ñëw di ko euh, dundal fekk si taalibe yi mu nekkoon loo xamante bi ne jàpp nañ ne dana rafet ñu euh, profité ci fàttalikuwaat suñu taalibe ak suñu diine ak tamit lu jëm ci suñu wàllu àdduna léegi li ñu waxoon ne dañ ko bëgg a waxtaanee dañu waxoon ne ay mbir yoo nga xamante bi ne dafa nekk ci suñu kanam ñun murid yi ñu xool naka lañ koy jéem a euh, fexe maanaam comme ni ñu koy waxee si wolof daal mooy li ñu bëgg wax mooy les défis de la diaspora mouride loolu mooy thème bi ñu bëggoon a waxtaanee xool li nga xamante bi ne ay défis la nga xamante bi ne peut-être ñu nekk fii ñu ngi koy am ñu xool naka lañuy ñuy mën a def ba jëm ko jéggi <laughs> kon fi ñuy tàmbalee rek ci tàmbali bu ñu xoolee ci wàllu immigration mën nañu wax ne dafa nekk ak euh, dundu doomu aadama ñoo ànd ndax doomu aadama ñaare fu mu nekk fu ne su fa amee ay jafe-jafe mën na fay jóge di dem feneen te la koy waral dañu wax ne mën na nekk ci wàllu économie immigration économique wala ci wàllu diine nit ki mën nay dem ngir euh, làq diineem ngir aar diineem mu tax mu jóge fenn dem beneen dëkk am na tamit loo xamante bi ne ci wàllu politique dana tax nit ki mën a jóge ci dëkk bi mu nekk pour dem feneen pour mën a saxal maanaam gëm-gëmu politique bi mu amee kon mën nañu wax rek ci tàmbali ne li ñuy wax émigration am na lu bari lu koy waral nit ki di jóge fi mu nekk di dem feneen waaye jàpp naa ne ñun buñ doon xool ci ñun suñu bopp mën nañu wax ne euh, bi ma njëkk a wax muy wàllu économie peut-être moom moo ñu gën a tax a jóge Sénégal euh, ñëw fii nii ñu bëri ñi nga xamante wi ne tamit jàng moo leen fi indi woon ñaare bu ñu paree dañuy dem wuti ab liggéey waaye du ñuy duwaat ñaari Sénégal ak seen ay diplôme kon mën nañu wax ne ñaar ñun li ëpp si ñun wàllu am-am moo tax ñu jóge suñu dëkk di ñëw fu fu mel ni France wala fu mel ni Italie wala beneen dëkk ci àdduna bi bu ñu jëlee baatu émigration mën nañu wax ne ci am na jamono ci wàllu comme fi ñu nekk muy dëkk tubaab yi mel ni France dafa nekkoon li ñuy wax baat boo xamante bi ne ci wàllu làkk tubaab dañu waxoon dafa nekkoon baatu bu péjoratif parce que bi xamante bi ne révolution française am na fii ñu ay nit doon nañ jóge France di dem feneen parce que dafa am beneen courant politique bu commencé woon a am léegi nag ñi doon génn France parce que régime politique bi ñu fi amaloon neexatu leen ñooñu leen doon tudde ay émigrants ñoo nga xamante bi dañuy daw làqu comme ni ñu koy faral di waxee ci olof di génn fii ngir régime politique la république bi ñu fi amal neexu leen ñuy génn di dem moo tax ñu wax ne ci jamono jooju ñaare dafa nekkoon lu péjoratif maanaam kuñ ko woowee rek dafa am lu ñu bëgg a xeeb ci yow maanaam yaa ngi génn sam réew parce que rek li fi nekk neexu la ca li fi nekk mooy li gën ndax li ñu woote mooy ñépp yam ci kanamu yoon amatul luy wane ak différence ci ab juddu walla ci am-am wala leneen kon ku bàyyi loolu ngir di dem feneen dañ lay jàppee comme koo xamante bi ne bëggoo ak maandu ci kaw suuf bëggoo leneen ba taxoon na ci jamono jooju 1791 dañu waxoon ne émigrant baat bu péjoratif la woon maanaam baat boo xamante bi ñi ñu ko doon dañ leen doon jàppee comme ay nit ñu nga xamante ni meluñu ni ñu war a mel bu ñu timit ñu waxee ñu ne bi mu ñëwee ñëw ñëw ba ay booru 19e siècle ci la commencé nag di am ndaxte dañu wax ne ci jamono jooju lu mel ni ay dëkk française yi nga xamante bi ne dañ fi doon jële ay africain dañ doon jële ay nit Afrique di leen yóbbu ci dëkk yooyu lu mel ni ay Antilles Guadeloupe ay Martinique dañ fi doon yóbbu ay africain yoo xam ne dañ leen a jàppoon ne ay jaam lañ di leen jënd di leen fi yóbbu ñu leen di ñu leen di liggéeyloo bañ demee nag ba abolir esclavage ci lañ jëlaat ay neneen nit ñëw fa ñu mel ni ay chinois ci la nag baat bi soppaliku nekkaat amaat beneen sens maanaam nekk sens boo xamante bi ne nekkatul bu péjoratif waaye day am ñoo xam dañuy dem di làq di dem feneen ngir ay raisons économiques chinois yu doon ñëw di installer lu mel ne ay Guadeloupe ay Martinique ay yu demee noonu ñoo dem ba loolu moo tax sens bi amoon ci jamonoy dix-huitième siècle mu mu soppeeku ci dix-neuvième siècle kon gis nañ ne maanaam ne ay mbir yu bëri dana tax nit ci dem waaye baat bi tamit maanaam li ñuy wax émigré ci jamono yi ci histoire France demoon na bay am li ñuy wax sens bu péjoratif waaye ci dema dema dem bañ gis benn immigration boo xamante bi ne économie moom moo ko waral mu dem ba mu nekk nag ñu ne kon koo xamante bi ne nekk nga fenn ba amatoo fa maanaam sa wàllu économie li nga bëggoon a li nga soxla maanaam jaadu na nga jóge fa nga nekkoon dem feneen loolu moo tax ba sens péjoratif bi mu amoon mu deñ waaye loolu mën nañu wax ne ci histoire dëkk bi ñu nekk la waaye bu ñu ñëwee ci lislaam mën nañu wax ni maanaam émigration tamit dafa ànd ak diine maanaam diine maanaam daf ko nangul jullit bi mu mën a génn dem feneen pour làq diineem wala pour liggéey pour am alal te buñ xoolee ci ci maanaam yàlla mi nga xamante bii ne moom moo ñu sàkk ndaxte ñun dañ ne ay jullit lañu yàlla moomu dafa wax ni moom man maa leen sàcc ci suuf ba pare dëkkaloo leen fi wala si anshaakum min al ardi wastaamarakum fiha maanaam ci suuf laa leen sàkkee maanaam ci suuf laa leen defare ba pare ngeen dëkkaloo leen ci kaw suuf si kon loolu li ciy déggee rek mooy ne maanaam fépp fu nekk ci kaw suuf maanaam nit ci yàlla moo ko fi dëkkaloo tey ji jàpp naa ne suuf si dagg nañ ko ay dagg daggaat ba am lu bees lu xew lu ñuy wax ay état ay nation wala ay continent loolu bi mu xewee yàggul jàpp naa ne jataay bi ñu toog ci kër sëñ bi fi mu nekk nii mën nañ fi génne ko nga xamante bi ne peut-être ba mu ñëw France amutoon visa dafa dagg billet rek ñëw visa ak ay séjour ba mu xewee yàggul kon loolu liñ ci jàngate mooy ba nit sosoo ci kaw suuf ba léegi dafa mas di déplacé wu dem feneen loolu lañ ci war a njëkk a xam ne kat am na loo xamante bi mu xewee yàggul di ne boo bëggee dugg sàngam par exemple boo bëggee jógee Sénégal ñëw France da nga war a am visa wala boo fi bëggee nekk timit mi nga war a am séjour yàlla moom moo sàkk suuf si dëkkloo ñu fi ñu war fi nekk war ko dundal kon bu ñu xoolee tamit l'islam ci bi muy soro sosu maanaam gis nañ ne njëkk nañoo émigré maanaam dem làqtu ji ci beneen dëkk avant l'islam di dem Madina dafa dem Éthiopie la jëkk a dem ndax bi ñuy lor saxaaba yi di leen lor ba lor gi metti yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xamante bi ne moom li ñuy wax la protection clanique moom moom clan moom clan bi mu bokkoon moom tribu bi mu bokkoon ñoom ñoo ko doon protégé am na ci ñoo xamante bi nag amuñu woon protection boobu lu mel ni ñoom ay Bilaal ay Suhayb bi nga xam ne ay étranger lañu woon Makka dañ leen doon lor lor yu metti ba yàlla ba yonent bi sallallahu wax ne jullit yi na ngeen dem Éthiopie ndax buur bu maandu ma fa du nangu ak tooñ ci boppam ci wetam du nangu ko tooñ moo taxoon émigration bi l'islam njëkk a la ñëw ñëw Éthiopie ñu nekk fa ba biñ delluwaatee Makka bañ jógewaatee nag deuxième émigration bi nga xamante bi ne tey jii moom mooy daté maanaam calendrier bu l'islam mooy bi ñu jógee Makka di dem Madina ak yonent bi tamit demoon na moom it kon gis nañ ne tamit ci l'islam moom it daf doon déplacé wu lu bëri bu ñëwee tamit ci yoonu murit mën nañu gis ne am na ay déplacement yu bëri yoo xamante bi ne dafa ànd ak yoonu murit ndax mën nañu gis ne ne Mbàkke Kajoor lu yoon wi sosoo waaye fi mu gën a euh, màggee mooy bi mu demee Bawol bi sëriñ bi delluwaatee Mbàkke Bawol jóge fa dem sanci Daaru Salaam daarul euh, dem santa Touba santaat ak dëkk yi ci ginnaaw bi yëpp ci la mooy li nga xamante bi ne immigration bi mu njëkk def ndaxte yoon yi mi ngi sosoo Mbacke Kajoor waaye demaat na ba delluwaat Mbacke Bawol bi nga xamante bi ne mooy cosaanu maanaam sëriñ bi ndax fa la maamam dëkkoon Mamadou Anta Sali waaye tamit loolu mën nañ cee jàngatee tamit ne bu ñu gisee maanaam njabootug sëriñ bi wala ay mbokki sëriñ bi ni ñu tasaaroo biir Sénégal mën nañu gis tamit ne famille boo xamante bi ne wala sëriñ bi naka jekk def doon dañ doon dañ doon tox lu bëri ndax tey bu ñu xoolee ku mel ni soxna Diarra Bousso mi nga xamante bi ne moom tey ma nga Saloum fa la nekk fa lañ ko denc bu ñu xoolee Mame Mor Anta Saly moom mi ngi biir Kajoor bu ñu xoolee sëriñ bi ma nga Bawol bu ñu xoolee par exemple ku mel ni Mame Fatou sa jóg moom ma nga ca maanaam Jolof loolu noonu day wan ne day wane lépp rek ay jaar-jaar yoo xamante ni yoonu murit jaar na fa wala sëriñ bi jaar na fa wala ay murit ñu ngi doon jóg di dem te waxaale wuñ exil bi demoon ay Mauritanie wala wala Gabon wala yeneen waaye rek liñ ci jublu war ne déplacement bi am na kon ñun ci suñu bopp mën nañu wax ne ñun murid yi suñu histoire dafa lié ak maanaam déplacé wu maanaam di jóge fi ñu nekk di dem feneen kon bu ñu jógee Sénégal ñëwaat fii sosaat fi ab communauté da mën nañu wax ne suñu histoire la bokk ndax ba ñuy soro sosu ci noonu lañ sosoo bi ñu ñëwaatee ba tasaaroo ci àdduna bi loolu rek mooy wane ne yoonu murid yàlla dafa bëgg maanaam ak tasaare njàngaleem sëñ bi ndax sëñ bi sax am na fu mu koy doon waxee eh, di wax ne dana wax ak nasaraan yi ci seeni dëkk loolu day wane kon ne ñun peut-être bu ñëwee fii nii di wax ak di yëngal ci mbirum sëñ bi peut-être loolu la la sëñ bi doon wax ne dana ñëw bis mu ñëw taxaw ak nasaraan yi di wax ak ñoom ci seeni suuf fi ngi dëkk kon jàpp naa ne ñëw gi ñëw fii ak ñëw gi fi sëñ eh, Mourtala doon ñëw tey ñu dem ba ak ci loxoy sëñ Maamoor mën nañu wax ne peut-être loolu loolu la sëñ bi doon wax kon ci tàmbali mën nañu wax ne kon euh, émigration dafa lié ak dondu doomu aadama waaye rawatina ñun murit yi nga xamante bi ne ñoo topp ci ginnaaw Serigne Touba léegi nag liñ doon wax thème bi mooy ay def défi maanaam yi mooy lan mooy keroog ci màggalu sëñ Abdul Ahad yi ñu ngi doon waxtaanee jaayante maanaam jaayante lañ doon waxtaanee jaayante ñaare bu taxawee lu koy waral mooy day fekk mbir taxaw mbir moo xamante bi ne day ne këtt na jonn lu mel ni li ñuy wax bayaatu ridwaan bayaatu ridwaan tey jii nekkutoon ne ay nit dañ doon ñëw ñoo xam nekkuñu woon jullit ñëw bëgg a dugg ci lislaam ñoo ñooñu ba ñuy jaayante ak yonte bi dèjà nekkoon nañ ay jullit ba pare waaye dafa am lu taxawoon lu ñu xamante bi ne yeesal ne kenn ku ne jëlaat engagement personnel maanaam jëm ko défi maanaam relever défi boobu noonu kon ay défi ñaare su taxawee dana laaj ay motivation yu gën a ferme yi ak yi amoon kon jàpp naa ne man fi may tàmbalee si défi yi loolu laay njëkk a wax mooy ne bi si njëkk jàpp naa ne mooy ne euh, donte dañ fay ñëw pour ay raisons économiques war nañu xam ne défi bi si njëkk li ma jàpp ne mooy bi si njëkk mooy li yàlla wax ci alquranul karim wax ne wa maa xalaqtul jinna wal insa illa li yaabuduni maanaam bindu ma nit ak jinne lu dul ñu jaamu ma kon buñ fekkee ne dañoo ñëw fii li ñu defi bi ñu war a njëkk relever mooy fexe ba conserver suñu gëm yàlla ak suñu diine ak suñu taalibi ndax jàpp naa ne leneen luñ fi mën a réussir ci wàllu économie ci wàllu social luñ fi mën a def bu ñu ñàkkee lii rek wala ñu ñàkk ko ci suñu njaboot maanaam échec am na ba pare te mooy loo xamante bi ne nit ki lu mu am bu ma am sëñ bi dafa doon wax nee na fa ma jëlee ak taalo bi su ma gisoon lu ko gën indil leen ko kon ñun suñuy bët amul leneen lu war a gën a rëy ak taalo bi jàpp naa ne war nañu jàpp sax ne pour tasaare yoonu murid pour tasaare diine islam moo war a gën a nekk suñu objectif que réalisation économique kon moo tax man jàpp naa ne foofu lañ war a njëkk tàmbalee xam ne défi bi si njëkk mooy fexe ba conserver suñu diine ba dara duñu ko yàqal ak lu mu mën di doon ba pare tamit jëm ko transmettre suñu ak njaboot ndax bu ñu xoolee inna allaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna nit ki sax bay wut jàpp maanaam mun leer na di ko am waaye boo xasee ba am sax bu fekkee ne da nga gëm yàlla moomatoo alal ndax yàlla daf ne la alal ji jënde naa ko ci jënd naa ci yéen seen i ak seeni i bakkan jënde naa ko ci yéen àjjana kon jàpp naa ne alal wala wala économie warul ñu mën yàqal suñu wàllu diine kon jàpp naa ne défi bi suñ njëkk mooy loolu fexe ba ñun li nga xamante bi ne moom lañu am ñu fexe ba conserver ko ba transmettre ko ñi nga xamante bi ne mooy suñu njaboot wala mooy beneen génération buy ñëw ba dara ba ñu ko yàqal ndax am na benn philosophe bu doon wax ne li am solo nekkul li ñu def ci man waaye mooy ni ma def li ñu def ci man maanaam euh, l'important n'est pas ce qu'on a fait de nous mais ce qu'on fait nous-mêmes de ce qu'on maanaam bu fekkee ne man par exemple Xaadim Mbàkke dañ ma jàngal alquran dañ ma yar ci ak bi loolu du loolu mooy li am njariñ li am njariñ mooy naka laay def yar boobu noonu est-ce que dama koy appliquer est-ce dama koy pratiquer wala déet loolu mooy li am solo su fekkee ne def nañ ci man ab yar jàngal nañ ma te jëfewuma ko amul njariñ moo tax benn philosophe loolu wax mu ne li am njariñ mooy li ñu def ci man naka laa koy jëfe am li may def ci li def ci man mooy li am solo waaye rek du caage ne def ci man rek mooy li am solo kon jàpp naa ne su fekkee ne def nañ ci ñun ak taalibe def nañ ci ñun diine li am solo muy ci li ñu war a jàpp ca jàpp ne képp kuy nekk fii war nga ci insister baax mooy ne lu ñu mën a réussir te réussir ñu maanaam garder suñu diine fexe tamit def ko suñu njaboot maanaam échec am na ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax ne maa naxala walidun waladahu afdalu min adabin xasan mu ne waajur bi mayul doomam lu gën yar bu rafet kon loo ko mën a préparé te préparé defoo ci moom loolu jàpp naa ne maanaam amoo réussir ci moom am na ci tamit loo xamante bi jàpp naa ne ci wàllu diine maanaam euh, bu fekkee ne tamit tey jamono bi dem na ba ni ñu gisee diine bari jàpp naa ne ñu njàngaleem sëriñ bi tamit war nañ koo maanaam xam ne mooy li gën ñu ñu bañ koo wute ak leneen ndax diine maanaam dafa bari lu ci dugg léegi loo xamante bi ne mën nañu wax ne politique la wala ay parparloo wala ay yeneen tey jii gis nañ ne l'islam fii ci Occident wala ci Europe wala ci Occident d'une manière générale ba ci Amérique mën nañu wax ne am na nuñ koy gisee te ñun war nañoo mën a wane beneen lislaam bu nga xamante bi ne mooy tax mooy li nga xamante moo tax lislaam jóg ndax yonent bi sallallahu alayhi wa dafa wax ne dañ ma yónni pour ma defar jikko yi te sëriñ bi ab yaram tarbiya mooy yar nit ki ba ruuxam maanaam li nga xamante bi ne tubaab moom lay wax ay passion yu fexe ba dominer suñu ay passion ci wàllu mer ci bëgg daraja bëgg àdduna bu ñu demee noonu nga xam ni kenn ku ne boo xoolee sa ko xam nga ban nga ci amee ndax nit ki moo gën a xam boppam ginnaaw yàlla moo tax kenn ku ne war nga jéem a xool xam ne li ñuy wax tarbiya mooy fexe ba sa ay passion yi nga am bu fekkee ne yëpp nga am nga fexe ba not yëpp bu fekkee benn nga ci am nga fexe ba dindi ko loolu mooy butu l'islam waaye fi mu nekk nii gis nañ ne l'islam dañ ko politiser tey jii man fan yi maa ngi doon lire benn article ci Le Monde benn journaliste mu wax loo xam xamante ni peut-être ñun buñ koy gis buñ ko buñ koy lire mën nañu wax ne kii dafay ëppal ci li muy wax waaye dafa wax ne ger bi am guerre bi tàmbali fan yi siri est-ce que nekkul luy annoncé troisième guerre mondiale te boo xoolee mën na nekk ndax gis nañ ne maanaam maanaam euh, Russie mi ngi ñëw di bombarder ba pare tamit États-Unis ak France ña nga fa te ñoom ñëpp bokkuñu ku ñuy faral te li ci am booy xool guerre mondiale yi am yëpp li koy déclenché mooy lu mel noonu benn incident bu ndaw ci guerre benn nit la ñuy rey lu mel ni deuxième guerre mondiale wala première guerre mondiale ab buur lañu ñu reyoon wala ki war na doon buur bi mu bañ ko reyee ay coalition am te coalition yi bokkuñu ennemi bu ñuy xeex tey ci booy ak Iran. ak ñi nga xamante bii ne ñoom ñoo waa Hezbollah ñoom dañuy wax ne ñëpp la ñuy xeex képp kuy xeex Bassa rek dañ lay xeex waaye ñoom lu mel ni France ak euh, ak ak États-Unis ak ñeneen ay Arabie Saoudite fan yi sax démb maa ngi gis benn benn benn benn article yu wax ne ulama yu bëri yu nekk Arabie Saoudite dañu wax ne maanaam jihaad ak Russie jot na ndax dañuy ñëw pour xeex l'islam ak tamit jàppale maanaam chiisme donc loolu noonu bu ñu xoolee ñun ñi nga xamante bi ne ñooy lislaam te lislaam baat bi jàmm lay firi war jàpp naa ne lislaam warul nekk cause bi nga xamante bi ne moom mooy créer troisième guerre mondiale te peut-être maanaam buñ ko wax day niru lu xaw ëpp waaye mën naa dem ba àgg fa ndax ay puissance mondiale ñoom ñooy jàkkaarloo te bokkuñu ennemi bu ñuy xeex ca loolu noonu mën nañu wax ne lu yàgg la moo tax ma jàpp lislaam bi ñu am ñun wala njàngaleem sëñ bi ñu war ko jéem a conserver ndax booy xool arab yi ci bi nga xamante ne mille six cent trente-trois les ottomans les turcs bi ñu ñëwee conquérir arab yi nga xam ne arab yi dañuy wax ne dañu jóge ci statut boo xam ne dominant nekk léegi ñu ngi dominer boobu noonu dañoo amoon lu leen metti moo taxoon ñu bëggoon a xeex empire islamique ndax nekk tey jiiteetuñ ko te booy xool ci 1789 maanaam Napoléon dem na ba Égypte te ba mu fa demee déclaration bi mu wax lan ci jublu ak ñoom nañ ko jàppe bokkul ndax moom lim xam boo parce que boobu empire ottoman puissance mondiale la woon dafa jaaxaloon occident yi ñu bëgg mu éclaté wu pour que ñoom ñu dominer àdduna bi te ba mu éclaté woo tamit dëkk yi nga xamante bi ne Turquie moo la yilifoon yépp maanaam dañ ko occidentaux yi dañ ko séddoo yi France jël ko yi Angleterre jël ko ñoom dëkk yooyu yëpp ay Égypte ay Algérie bu demee jë bu dee ci booru yooyu noonu yi Angleterre jël ko ndaxte loolu ci bëggoon waaye boo xoolee Napoléon bi mu demee dafa wax ne au nom de la République française fondée sur des idées de liberté et d'égalité Bonaparte euh, commandant en chef des forces françaises informe toute la population de l'Égypte les mamelouks amenés du quoi de, de du Caucase ont corrompu la la religion la, région la plus euh, importante, la plus belle du monde. Mais Dieu l'Omnipotent, le maitre de tout l'univers, a fait de leur destruction un impératif. maanaam li mu wax mooy ne région bi nga xamante bi ne mooy le monde arabe moo nekk bi gën a rafet ci àdduna bi bi gën a riche waaye ottoman yi dañu ñëw corrompre ko maanaam yàq ko kon xeex leen tey nekk na lu nga xamante bi ne waru gar la ci bépp nit ci àdduna bi loolu te lu yàgg la maanaam parce que Bonaparte maanaam ci jamono yàgg ya woon waaye ba mu fa jógee ku ñu wax Mohamed Ali ak tamit maanaam ñeneen commencé nañ di révolter wu contre l'autorité ottomane di commencé ci lañ dem a dem bañ am lu ñuy wax lu li ñuy wax la révolte arabe jóg am ja avant l'islamisme di am jamono yi nii bu njëkk la amoon mooy le nationalisme arabe maanaam nax da la renaissance arabe moom lañ daan wax nga xam ne ñoom demoon nañ ba fàtte xaw a fàtte lislaam nga xam ne boobu noonu ay dëkk lu mel ni ay Liban doonu ñu focaliser wu ci diine ji li ñu doon focaliser rek mooy bu nekk arab ñëw ngir ñu libérer arab yi léegi nag bañ demee ba lis ba nationalisme arabe nekk en fayit ci lañ commencé waat ci wàllu lislaam ci wàllu islamisme mu judduwaat kon mën nañu wax ne ci biir phénomène yi am jamono yi am na lu ko lal mooy kenn ku yaa ngi bëgg sa daraja jóg ndax booy xool ci même Iran dañuy wax ne li tax ñuy jël diine si maanaam seen ni ñu gisee diine mooy chiisme di ko utiliser mooy ñoom dañoo nekkoon empire perse empire mondial la woon bu njëkk bëggaat nag nemaat amaat autorité mondiale moo tax ñu jël diine yi l'islam pour def ko diplomatie pour mën a dominer ba amaan empire Arabie saoudite tamit maanaam bëgg am maanaam moom it euh, influence fi monde musulman kon mën nañu wax ne ñun ñi nga xamante ni ne dañoo am parce que yi comme ni ma ko waxee sànq pour yar nit ki la pour defar nit ki la war nañu bañ a fexe ba ñooñu nax ñu ba dugal ñu ci ab xeex boo xamante bi ne da yàqal nit ci kaw suuf da yàqal lislaam ci kaw suuf ndax Sénégal sax jàpp na ne bu Arabie Saoudite amee jafe-jafe ci wàllu xeex dafa war a dem jàppale ko ba yóbbul ko ay soldat kon ca jàpp naa ne jot na ñu xam ne diine lislaam kenn waru ko jël ngir sa ay grandeur pour maanaam imposer loo nga xamante bi ni sa gisuñu bopp la wala tamit sa maanaam ay loo xamante bi ni ci ay antiquité la woon lu gën a yàgg ay empire yoo xamante bi ne lu yàgg la woon nga bëgg a nekkaat puissance dominante monde monde bi jaaree ko ci l'islam moo tax ñun jàpp naa ne bokk na ci défi yi yi nga xamante bi ne war nañ ko relever fexe ba xam lan moo tax l'islam jóg maanaam defar nit ki ba mu am maanaam Euh, ngërëmul yàlla wala boog bu ko amul mu am set maanaam nit ki am koo xamante maanaam jikko joo xamante bii ne dana mën a texe ëllëg yomal xiyam bu taseeg boromam subhanahu wa waaye warul nekk ay diine yi parparloo wala ay diine yi nganaay di ko dagg sante ak kon jàpp naa ne loolu tamit lu ñu war a bàyyi xel la xam ne kat ñu suñu bopp am na lu nga xamante bi ne sëriñ bi noonu la gisee diine am na lu nga xamante bi ne noonu la jàngalee ñu jéem a timit conserver loolu ba duñ ko bàyyi di dem gisin gisuñu keneen ndax jàpp murid yi yëpp loolu lañ jàpp ne sëñ bi li mu ñu indil moom moo gën lu nga xamante bi ne feneen la jóge tey adduna maanaam day dox tey lislaam dañu wax ne ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ab yonent du ñëwaat looloo tax yonte bi ñaan yàlla muy yeesalal ko diineem ji saa bu demee ba jar ko sëñ bi nag ak yeesalam li ci particulier mooy dafa wax ne ñeenti téeméeri at maanaam dana fi nekk maanaam yoo xamante bi ne du màggat mukk kon jàpp naa ne ñun suñu yoon ba léegi aajeegut yeesal li ci aaje mooy doxin yi wala ñi nga xamante bi ne maanaam ñoo ko jiite ñoo war di dëppoog seen i jamono xam ne jamono bu ne am na lu nga xamante bi ne noonu lañ war a doxe ci li ma doon wax sànq ne diine jikko la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne maanaam ki gën ci yéen mooy ki gën ci ay jikko mu waxaat feneen ne akmalul muminina imanan ahsanahum xulqan waxaat ne ki gën a rafet diine ki gën a rafet ngëm yàlla mooy ki gën a rafet jikko tey bu ñu xoolee tamit danañ gis ne euh, jaamu yàlla yi ñuy def yépp liñ si jublu mooy am jikko ju rafet buy julli buy koor buy aj màkka buy lépp résultat bi mooy fexe ba nit ki defar jikko yonent bi nee na nit ki su fekkee ne ak julleem tëriwu ko mooy yàlla tëriwu koo def ay ñaawteef julleem nga daf koy yokk maanaam ay ñaawteef bu fekkee nit ki day julli maanaam te mënul bàyyi def ay bakkaar wala ay ñaawteef yenn yi maanaam julleem googu noonu da koy jural musiba kon li ñu war a xam mooy ne jaamu yàlla yépp day defar jikko yi jikko yooyu nag moom la sëriñ bi gën a maanaam dugal ci li ñuy wax tarbiya fexe ba defar nit ki ba mu nekk koo xamante bi ne du yàqal kaw suuf si kenn du yàqal ay mbokku jullitam du yàqal tamit ay mbokku nitam yi nga xamante bi ne dañoo bokk di dund ci kaw suuf tey mënu leen fee jëlee ñooy mënuñu ko fee jëlee te it sëñ bi doon na wax ne maanaam nit ki ñetti nit nga seqal àdduna bi sa mbokkum deret mi nga xamante bi ne maanaam da ngeen war a bokk ay pexe bokk yéene bokk lu ngeen am maanaam mbokkum diine mi mu wax ni mbokkum taalibe mi ngeen di soppante di bëggante di wóolonte jàmbur bi nga xamante bi ne nag moom bokkule ak moom diine bokkul ak moom ci ci wàllu deret mu ne li wax si diggante ak moom mooy da nga war a maanaam bañ ko bañ bañ ko xeeb bañ ko yàpp maanaam tey jii bu ñu rombee koo xamante ni du ab jullit sëñ bi lam ñu digal ci moom mooy buñ ko yàpp buñ ko bañ buñ ko xeeb jàpp na ñoo ko gën ndaxte gën fa muy nekk mooy nit ki dund ci ak ngëm yàlla ba faatu ci dekk dekkee ko loolu la nit kiy gëm kenn ku ne xamul ci li ngay faatoo ak ci li ngay dekkee moo tax te maanaam sëñ bi di wax sax ni koo xamante bi dafa jàpp ne moo gën ab xaj boobu mu ne xaj ba moo ko gën ndax xaj bi ci yow xamoo yow miy wax ne yàggoon xamoo loolu ku te yow ci suuf lañ la defare kon jàpp naa ne bokk na ci défi yi nga xamante bii ne war nañ koo maanaam sàmm wala war nañ koo jéem a euh, relever mooy fexe ba maanaam ja jéem a conserver tamit maanaam li nga xamante bii ne mooy njàngaleem sëriñ bi maanaam sëriñ bi ni mu ñu wane ne nii mooy diine wala boog lii moo tax diine jóg ñu jëm ko xam bañ a bàyyi loolu dem di jël gisinu keneen wala gisinu ñeneen loolu jàpp naa ne jar na waajur yi ndaxte nit ku ne maanaam sa njàmbaar fi ñu koy xamee mooy ci say doom parce que ñun ñu si bëri suñu résultat yi ay waajur lañ peut-être sa waajur moo la jàngal moo la yar nekk ci wet agronome di gis ni muy jëfee ak ni muy waxee nga dem ba màgg ci loolu waaye yow sa njàmbaar ak sa résultat fi ñu koy xamee mooy ci say doom ak ci sa famille moo tax nit ku ne la nekk ci yow peut-être bul ko ndamoo ndamoo sa ndamoo say waajur la waaye nag yow sa njàmbaar ak sa leneen ñi ngi koy xamee ci say waajur moo tax njàngaleem sëriñ bi jàpp naa ne kenn ku ne war nga ci xar sa tànk tubay muy loo xamante bi ne ba jéem koo def ci sa njaboot kon jàpp naa ne ñaari point yooyu noonu mooy loo nga xamante bi ne mooy loo jàpp naa ne war nañ koo tàmbale mooy diine ji ak taalibe gi ñu fexe ko relever ba sàmm ko ba yor ko jéem ko tamit buñ ko manee transmettre ko suñu ay doom wala ñi ngeen ñi nga xamante bi ne ñooy ñëw suñu ginnaaw bu ñu ñëwee tamit ci wàllu su wàllu àdduna wàllu doxalinu àdduna li nga xamante bi ne ay nit yu ne bu ñuy ànd dana aajewoo maanaam li ñuy dox ñu fexe ko tënk ba maanaam li leen taxoon na jóg ñu jéem ko am muy wàllu économie kon jàpp naa ne tey jii nañ doon doxe ci jamono yu yàgg ya est-ce que jotul ñu xoolaat ne waruñu mën a xool weneen doxalin ndax jàpp naa ne bari na ay nit yu ne nga ay communauté yu nga xamante bi ñu ci dëkk bi di am seeni ay jàkk yu mag di am ay entreprise di am ay école tey jii jàpp naa ne ñun suñu bopp am nañ communauté mais communauté bi mën nañu wax ne organisé wul tey jii li ci li ñu waroon a am minimum bu doon école primaire sax war nañ ko am ndax tey jii bu ñu amoon benn école primaire bu ñu peut-être bala ñuy xale yi dem ba ak SM2 mën nañu am ab collège wala lycée. te boobaa noonu mën nañ fa dugal programme boo xamante bi ne li leen bëgg a seen wàllu diine ak seen wàllu taalibe mën nañ ko fa def waaye nag bu dee école benn école privée wala muy école publique jàpp naa ne dana gën a jafe. kon jàpp naa ne yar bi lay tax mu gën a yomb mooy ñu xam ne suñu amoon ci suñu biir communauté école yu nga xamante bi ne ñoo koy moomal suñu bopp doonte sax école primaire la ndax xale bi peut-être bi muy màggee ba ay fukki at wala fukki at ak ñaara yu demee noonu bu fa nekkee ci communauté lu bëri mën nañ ko def ci moom ba su génnee di dem collège wala lycée maanaam dana tax mu xaw a dëgër tuuti kon jàpp naa ne loolu lu waroon a mën a jéem a taxaw la leneen li ci topp mooy mën nañu jéem taxawal xool est-ce que jaaduwul fi mu nekk nii li nga xamante bi ne dañ koy soxlawoo ñun nga xam ne booy xool daane daanaka suñu dëkk lay jóge ba pare lu ci ëpp ñun ñoo koy consomé est-ce que jaaduwul tey jii ñu amoon lu mel ni ab boutique wala ab supermarché boo xamante bi ne maanaam lu fa génnee man nañ koy duwal ci kër bi ba pare produit africain yi nga xamante bi ab indien wala chinois wala kenn moo ñu koy jaay est-ce que jaaduwul ñun ñu jéem ko amal suñu bopp boobaa ñi nga xamante bi ne ay bokki taalibe la ñoo xam ne amuñu fu ñuy xëyee wala am nañ problème mu papier pour parce que contrat moo leen ko xañ ñu jëm leen ko wutal kon jàpp naa ne tamit dox maanaam da nga war di ko dëppaleeg sa temps dëppale kook sa jamono ndax sëriñ bi loolu la sant maanaam wax ne nit ki buy dox da nga war di maanaam dëppoog sa jamono. loolu nag bokkul ne samay sët rek bu ne ay sët maanaam képp kuy wuyoo sëriñ bi jàpp naa ne ci sëti sëriñ bi nga bokk muy loolu muy wax ne zuriyatan tajtahidu maanaam ijtihaad maanaam di jéem a góorgóorlu di réformer li ngay doxee ba pare tamit di ko dëppaloo say jamono kon jàpp naa ne ñun bu ñuy fekkee ne lu ñuy def rek dañ ne diw sàngam jëlal mbaxana mi wala jëlal kaala gi tey peut-être nit ñi duñ ko jàkku jàpp naa ne waral nañu xool yeneen ay source yu nga xamante bi ne économique la buñ ci jógee mu man a indi loo nga xamante bi ne nit ñi danañ am lu ñu yóbbu seen i kër danañ ci mën a régler situation yu bëri ba pare tamit kër sëñ bi dana tax ñu man fi réaliser ay réalisation yu ëpp doole que liñ fiy dem ndax tout le temps su fekkee ne bu ñuy def dara rek dañ naan ne nit ñi joxe seen poste jàpp naa ne man na diis ci ñoom wala boog man na fekk duñ ko jekku te am nañ yéene ji kon jàpp naa la yu xamante bi ne war nañ koo mën a jéem a régler war ko mën a jéem a relever.